أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن والاهم وطبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi mbokk yi nga xam tabarakallahu ñoo baaxoo suivre seen télévision sbt média point com ñoo ngi leen di nuyu ci baatu salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di ñaan baatu salaam baatu rahma baatu baraka li mu làmb ci ngëneel ak yërmande yal na yàlla boole na ko bi jaahi rasulillahi salawatullahi alayhi wa sallama di am mbégte ak contentement tabarakallahu di ñëwaat di leen présenté seen émission bi nga xam mooy siira tabarakallahu tey nag ñu tànn lenn war ko waxtaanee ak yéen incha allahu jële itam tabarakallahu ci alquranul karim lenn war koo laayante biir ak yéen la allahu taala tey nag ñu tànn saar bi nga xam ne ni subhanahu wa taala moom moo moo ci giiñ mooy wal asri tabarakallahu ñu ñëw ak yéen ci wal asri baad aouzu billahi min asheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim wal asri inna al insana la fi xusri illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawaasaw bil xaqi wa bi bis sabri subhaanahu wa taala moo wax ni wal asri giñ naa ko jamonoy tàkkusaan innal insaana naka doomu aadama yëpp la fi xusri ñu ngi ci perte mu mel ni subhaanahu wa taala su yemoon foofu rek su boobaa dootul aajoti ñuy jëf julli yeeg koor yeeg naafila yeeg aji màkka yi yëpp day nekk xabaan mansuura waaye yàlla dootu ko nangu ndax dootu ko reconnaître ndax day nekk habaan mansuura waaye subhaanahu wa taala yemu ci dafa ni illa allazina aamanu ba mu des gaa yi nga xam ñoo bokk da bokk ci daairatul iman gaa yi nga xam ni aamanu gëm nañ waaye seen gëm gën nuñ ca am amilu wa amilu dañ koy jëfee tabaarakallaahu mbokk yi mu mel ni loolu boo ko déggee rek day tegtale ni nit daal ginnaaw bi nga gëmee subhaanahu wa taala ba pare da ngay fexe ba gëm gim ko gëm amilu nga jëfe ko jëfe gi nga koy jëfee nag subhaanahu wa taala nee na da ngay fexe nag ba boo koy jëfee saalihaat jëf ji mu sell ndax am na ñoo xam ne ni amanu gëm nañu waaye amilu wuñ jëfe wuñ seen gëm gi nu gëm mu mel ni kuy parce que dañu wax ni nit bu fekkee ni danga gëm yàlla subhaanahu wa taala di jëf lu yàlla gërëm da ngay góorgóorlu ba ku la xool xam ne kii kat li mu gëm mu ngi koy jëfe moo tax mu ne amanu boo bokk ci daayratul iman da ngay fexe ba gëm gi nga gëm amilu nga jëfe ko nga fexe nag ba amilu li ngay jëfe saalihaat jëf ji mu sell parce que saalihaat bu sellee rek subhanahu wa taala nee na su boobaa wa tawaasaw bil xaq dañuy dénkante dëgg di waxante dëgg tabaarakallaahu waaye wa tawaasaw bis sabri dañuy dénkante muñ ndax subhanahu wa taala wax ne ne xajuma ci jëmmi doomu aadama waaye ci xol bu sell laa xaj ndax allahu huwa alxaq alxaqu huwa allah ndax yàlla mooy dëgg te dëgg mooy yàlla kon doomu aadama da ngay góorgóorlu ba amilu li nga gëm amilu nga di ko jëfe boo demee ci imaam xaadimul rasul mu ngi wax naan laa tastari dunya bi xura ya fata man ba anuran bi duja fa sa yandamu yaa ngi dégg yaa yàlla yi ni ñu waxe laa déedee tastari bul topp addunya adduna bi xuraaya ba jëndee ko sa kër àllaaxira mu ne man baa képp ku jël nuuran sa leer bit jaa jëndee ko lëndëm mu ne fasa yan damu yomal xeyaam di nga dekki fasa yan damu nga rëccu mu mel ni ndekete daal àdduna dañ fi ñëw pour waajal sunu bopp waaye nekk ci examen waaye résultat bi kañ la ëllëg moo tax maam xaadim rasul wax ni laa tastari dundiyaay bi xuraaya fata man baa nuuran bit du jaa fasa yan damu mu ne laa bul topp laa dee des tastari bi xuraaya ba jëndee ko sa këruk àllaaxira maam xaadim rasul nee na man baa nuuran képp ku jël sa leer jëndee ko lëndam mu ne yomal xiyaam di nga dekki fa sa yandamu nga rëcc mu ne wax fa nu jëm yiw du fa doy waaye déggal déggal maam sayid alxaaji malik li mu wax moom it mu ne walay sa nafan ala xubbin bila amalin wa taabi an sunnat almuxtaari taxtanimi mu ne walay sa nafan du la jëriñ mukk ñu ne ko Seydil Xaaji Malick lan moo dul jëriñ mu ne xubbin bi laa amalin cofeel gu àndul ak jëfe nit kay soo ko bëggee da nga koy da nga koy roy nit boo ko bëggee da nga koy topp waaye sopp naa la bëgg naa la waaye jaraloo ma topp jaraloo ma dara boobaa cofeel ga day des moo tax mu ne Seydil Xaaji Malick wax ni xubbin bi laa amalin mu ne man daal maa jaaxle ci nga xam dafa bëgg ba pare waaye bëgg gi mu bëgg àndul mu topp àndul mu jëfe ko ñu ne waa kon Seydil Hadji maa lu ñu def mu ne taabi an sunnatal muxtaar mu ne taabi an sunnatal muxtaar da ngay topp sunna yi kañu tànn ki kookoy kan Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga gis ni Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu yàlla royloo moo tax gis nga saar bi subhaanahu wa taala wax ni illa allazina amanu gaa yi nga xam ni amanu ñoo gëm waaye duñ yem ci gëm gi de amilu dañuy jëfe seen gëm gi da fexe ba yow li nga gëm amilu nga jëfe ko boo ko jëfee nag nga fexe li ngay jëfee saalihaat mu sell bu sellee nag su boobaa watawaaso bi xaq ngay dénkanteeg doomu aadama yi dëgg watawaaso bi sabri waaye ñu dénkante muñ yaa ngi dégg daw jullit yaamuru bil maaruf day digle lu baax seet lu yiw mu di ko digle ween ha anil munkar tamuy tere lu ñu sib fépp foo fekk loo xam ne ni subhanahu wa taala gërëmu ko diine gërëmu ko nga fexe koo dajji iza raaytum munkaran fa yuxayyirhu bi gi ndax loolu la subhanahu wa taala loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax dafa ni képp kenn ci yéen bu gisee loo xam ne ni gënul ci diine ji loo xam ne ni xam ne lii kat am na pouvoir dindi ko fa yuxayyirhu bi yadihi na ko dindi ci loxoom wa lam yastati su fekkee ni dem na ba xam ne lii kat munul nekk mu góorgóorlu di dindi ko fa bi lisa fa bi lisaani sa ko ci làmmiñam bu demee ba xam ne tabaarakallaahu lii kat munu ko dindi ci làmmiñam fa bi qalbi mu metti lu ko ci xolam kon jullit daal subhaanahu wa taala bu demee ma ni doomu aadama yëpp a perte am na lu xew mooy lan mooy fexe ba doomu aadama yi lii tax ñu tegu ci yoon mooy saalihaat li ñuy jëfee mu sell su boobaa watawaaso bi xaq dañuy dénkante dëgg watawaaso bi sabr dañuy dénkante muñ ndax al muminu jullit kuloo xayrun léppam yiw la fekk yaa ngi teg sa tànk ci raatal mustaqim ndax munoo taxaw ni yàlla iyaaka yow dongu naabudu la ñuy jaamu wa iyaaka yow dongu nastain la mottalikoo ba pare nga jógee fa jëf lu wuuteeg li nga ñaan xoola man maa da nga yéemoo ci ki julli ne allahu akbar yàlla yow rek a màgg alhamdu nga sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin yaa sant yàlla jullee ko ne yàlla arrahman arrahim ne yàlla maliki yawmi diin dellu si ne ko yàlla na na'budu wa iyyaka nasta'in pare génn jaaxle dalla dalla sa loxo keneen est-ce que bàyyi nga xel sa digganteeg subhanahu wa taala moo tax doomu aadama jullit dafa war a sellal ngëlam ngëmam jëme ko ci subhanahu wa taala jullit dafa war a góorgóorlu ba pas-pasam ci digganteem ak boromam mu di ko nàmm moo tax subhanahu wa taala wax ni watawaasa bil xaq dénkante dëgg watawaasa bi sabri yu dénkante muñ nekkate daal jullit dëgg dëgg dëgg daal mooy ki nga xam ne fexe na ba amiloo li muy jëfe bu ko jëfee pare saalihaat mu sell boo fexee ba saalihaat li nga jëfe sell nag su boobaa watawaaso bi sabri day fekk def nga tarbiya ci dëgg ba pare bu ñu la waxee dëgg da nga koy mën a dégg watawaaso bi sabri waaye la dal ndax as sabru inda satmatil ula yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ni as sabru muñ daal dëgg dëgg dëgg dëgg inda satmatil ula mu ngi ci mbir dal la bi mu la dalee ci saasi rek nga ne man xaw ma lan laa def yàlla ba yàlla nattoo ma lim ma nattoo ba maas njaay jóge fële ñoo def ma lim ma def nga am pouvoir fayu te boo fayoo kenn du la yedd ndax moo la tooñ te mën nga fayu waaye nga seet sa digganteeg yàlla ne xaw ma lan laa def yàlla ba yàlla na tooma kii def ma nee na ci saa si nga jël loolu delloo ko ci yàlla na bàyyi naa ko ak yàlla bàyyi gi nga ko bàyyi yàlla muñ ko ci saa si te fayu woo tam pouvoir fayu sallallahu alayhi wa sallam nee na looloy muñ waaye ma tooñ la nga mën a fayu fayu dem ba yëg ni ki nga kii nga bëgg a fayu yëg nga ni mënoo fayu ci moom ndax moo la ëpp doole nga jéem jéem jéem ba tële ñàkk pexe doo a wax ne muñ naa bàyyi naa ko ak yàlla déedéet da ngaa ñàkk pexe. muñ daal dëgg dëgg dëgg sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ab sabru muñ daal inna sadmatil ula mu ngi ci mbir dal la réel la dal ci sa kaw rek nga delloo ko ci yàlla ci saasi ñu ne loolooy muñ tabaarakallahu kon jullit tabaarakallahu sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu moom la nu yàlla royloo li yàlla wax ci alquranul karim mbokk yi dégg ngeen ko mu ngi noonu jullit daal watawaasa bil xaq day waxante day wax dëgg watawaasa bi sabri déggante muñ ndax loolu mooy jullit sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci li mu mujj dénkaane ci mujj dundam mooy asalaat aw ma malakat aymaanukum maa ngi leen dénk ngeen yërëm ñi ngeen yilif maa ngi leen dénk ngeen julli asalaat maa ngi leen dénk ngeen julli aw ma malakat aymaanukum te ngeen yërëm ñi ngeen yilif sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax kon li nga ciy déggee mooy jullit piir daal bu jekku day baale waaye da nga yërëm ñi nga yilif tabaarakallaahu mbokk yi lii lañ indi woon tey ne nañ ko waxtaanee ak yéen fii ci seen émission siira tabaarakallaahu ci mbokk yi nga xam ñoo ñuy topp ci sbtmedia point com waaye topp ñu ci Instagram YouTube whatsapp twitter tabarakallahu lii la ñu indi woon ne nañ ko jaalale ak yéen partagé ko ak yéen aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu